yow tey ngay bàyyee kaa tey la la nit ñi duñ la gëmati ba faaw am ay pour tegal bu meleen ne luy jooy boobu tamit baax na yéenay xoolaat ni ngeen koy dóoree nan la seen séquence di jaale mais bu mu bu mu nuru loo xamante si ne nag seen scénario bi day yàqu comprendre nga waaw kay faaw mu xaw a dëgg tuuti. woo ko ko ko après nga tegal ma parce que vidéo bi def naa ko de dafay enregistrement nday kii ñoom kii rek yéen nday loo rek moo. ok léegi dee na léegi xaaral fii ak cinq minutes dix minutes baax na léegi maa ngi leen di yónnee vidéo dugg ba yéen. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yàlla mën a leeral yàlla leeral na lépp ndeyloo sama histoire ak moom ku nekk xamoon na ko ah bis bii laa doon xaar ndeyloo ak Pawlish Mbaye ñoo doon kattante ci benn hôtel bu nekk dakaar aatu moo leen doon filmer ki leen doon filme sama xarit la guddeeg bëccëg daanaka kaa yi ma doon kaa yu ci bëri moo ma doon jox ay dof la wéruñu filmer leen ba bi euh, A ba ba pare ngeen doog jël vidéo bi man Pawlish Mbaye bi muy wax Pawlish mbay chaque jour dana ma del julli del jàpp del jàmm yàlla ah di ma wax naan bu la kenn gisee fu ñàkk fayda di ma yedd toujours mel ni comme si ba mu ko xamee sax yàggul mais dafa mel ni comme si instant bi nii ah moom mooy sama papa. yéen ku leen yeewoon xaaj guddi dina ndeyloo dina foofu mu taat di ngeen ko gëm man dof laa xam de dof laa dof du foofu taat. waxoon naa leen ko yàlla nag dossier Adamo suma loxo la ko jaarale yow tey ngay bàyyee kaa tey la la nit ñi duñ la gëmati ba faaw am ay pour tegal bu meleen na luy jooy boobu tamit baax na yéenay xoolaat ni ngeen koy dóoree nan la seen séquence di jaale mais bu bu mu nuru loo xamante si ne nag seen scénario bi day yàqu comprendre nga waaw kay faaw mu xaw a dëgg tuuti woo nga ko woo ko après nga tegal ma parce que vidéo bi def naa ko de dafay enregistrement nday ki ñoom kii rek yéen nday loo rek moo ok léegi dee na léegi xaaral fii ak cinq minutes dix minutes mer coob woo la baax na léegi maa ngi leen di yónnee vidéo bi vidéo baa ngi dugg ma yónnee salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi yàlla mën a leeral yàlla leeral na lépp ndey loo sama histoire ak moom ku nekk xamoon na ko ah bis bii laa doon xaar ndey loo Pawlish Mbaye ñoo doon kattante ci benn hôtel bu nekk Dakar aatu moo leen doon filmer ki leen doon filmer sama xarit la guddeeg bëccëg daanaka kaa yi ma doon kaa yu ci bëri moo ma ko doon jox ay dof lan wéruñu filmer leen ba pare. jigéen am bës ñu ngi fayee seen àdduna ñu ngi fayee seen ndaw ñu ngi yàq seen bopp dafa di yàq seen ëllëg waaye doo ko am doo ko am mukk waaye bu ñaaw rek ngay am jigéen sàmmal sa bopp jigéen téel sa bopp jigéen amal fulla amal fayda sa bopp. Pawlish Mbaye mii góor la de day xool ko neex rek mu def ko ndax góor la dara du ko si fekk lu mu bëggoon la te am na ko nday loolu soo ko déggee nga xam ne kii amul xel amul xalaat ndax yaakaar naa ne bés bi ëpp na ko doole ba mu def lu mu war a def coo jubul mais jigéen sàmmal sa bopp jigéen sàmmal sa ndaw bu la benn góor di ñàkkuloo fayda bu la benn góor di ñàkkuloo fulla bu la benn góor di la waaye jëloo ndax sa ndaw rek nga am bës na bu mu la jaral yenn yi gis nit li mu siw bu mu la jaral nga koy dungul ndax siw du dara siwu Sénégal du dara bësu Sénégal du dara yàqante la a waxam